waaw waaw yow nag sa am na solo xam naa ci dara ay nit dem nañ ba bene di yàq sama dëgg Ousmane sonk di ma def ay sëriñ di ma sëriñcu yow mi noo ko xamee sëriñ bi kooku moo kooku moo kilifa kilifa wax ma ko dina sëriñcu pour pour pour pour sa damay sëriñcu pour sama diggante Sonko yàqu di ma sëriñcu pour que ma bañ a waxati ay waay dem nañ ba sànni ma korte sànni la korte te ñii ngi gis ci presse bi ñu plateau yooyu ñeen ñoom ñoo ko def ñii di wax nii ci plateau waaw ay nit kilifa gi bi ñu sama tour bi ko xolé mhm. mu ñu gis sama bidiw nga ni. as do dee xaaral nga ànd ñu wo ben kilifa fi mhm. di diko laaj. Mhm. kooku ni niko koku bul ko laal sama nit la. man señ ma ngi sante yalla bu baax. wa Cheikh pourquoi sa gis ñu ko xana xaar nga dafa ay mbir ay pexé ba bidiw yi eh, xawa ki xam nga da nga xaw a doy waar. nag yow sama waajur la li nu boote kenn xamuko nan ma bayyi <laughs> ko boyu da nga fay te da ngay fat nga ni. ku ma bàyyiwut da fay da nga faatu. ku la bàyyiwul. da nga fay te da nga faatu. ku ma liggéey faatu. nan ma bàyyi wax naa leen ko ñi ñi dañu laa ba. nan ma bàyyi ku ma liggéey danga nga te da nga faatu. te te te te nga xëy tegle bala ngaa faat da ngay fay ba pare. da ngay fay ba pare. doog a faatu. te da nga jàmb te te feebar ba ñëpp yëg ko nan ma bàyyi. te ñu laa ba da ngaa doy waate garaaw de. def na lu nekk sama diggante sonk te tey la ma sonk na bëgg tey laa gën a bëgg sonk. def na lu tay pour que ma ñu fay ma ba nit ñi du ñu ma déglu te tay la gëna mëna wax. yow kay yaangi ni yow yow def na ba Cheikh Abdou Bara Dolly bu jogati nan damm tanki yow mii. waaw dañ damm tanki barke borom tuwa ci digge te man defuma ken dar sen Cheikh man ni ma yene nit ñi jàmm. Ah. ni ma bëgg lu baax ni ma mëna a ni ma yalla may tarale may tarale affaire tay ji manam mom kuma gis réel la bol sama bop ndekete maanaam am na ñoo xamante ni nañu rek pour Cheikh Abdou Bara Dolly mi ni ko yàlla waaye teraanga bu ñu ko may nan ko nan ko nan ko fàtt. Cheikh dem liggéey. am satu am na fii ñoo xamante ni barku démb fii leen woone ma kaay fay ma location. nga ni tey tey bokkoon si ñooñu man. lii yëngu nii lii yëngu fi ma dëkk di. aywa ñaar nga jël. ëpp na ko de xanaa mermus. ah kon da ngaa lay mermus. xay dama mermus ak Sacré Cœur. amaana nga dem Sacré Cœur ak man si IDCA fi may defaraat. ak ak si en face IDCA. waaw ak ak ak filaawo yi. waaw filaawo yi ñu cooy am nga fa. am na waaw dama ne mais man ñoom mais mais ñoom daam ba ñëw pourquoi duñ ñëw filmer la yow. Hmm, hmm, yow gaa xale yi gisoon naa sax ñu ñu ñu euh, kii sa sa sa oto yu bari yeeg. moo ñëwoon après jël ko dugal ko hmm, santuma ko loolu sax. ko def dugal ko mais loolu du dara. mais léegi ñii doon jublu rek. waaw mais ñii pourquoi ñëw ñu foofu. ah nan fa ñëw ku ñëw ma rey la. ku ñëw ma rey ko carrément. ñoom ñooñu. barki suñu toog ko fa te sàng ma rey ma ma. ak ah, yow nu ngeen xamee ne ku ñëw sa kër di filmer. teg ko fan filmer kër jàmbur lu ko tere lu war ko tere waa dafa tere dem kër jàmbur di ko filmer wala nga koy foto te neexu ko. waaw Ousmane Sonko lan la jàppante woon na bi. ñoo filmer ko. neexu ko ko. mu nangu téléphone ba. waaw. lu waa def ko tere ko lu waa dafa sakk maanaam dafa proteste nit euh, imaasam waaw ak vie privée ak vie privée waaw pourquoi ñu koy def ñëw kër jaam ne kii dafa sàcc xool kër gi xool leen lu mu yor xool lu mu nii dafa sàcc c'est grave ci mooy ku ma ci nguur. waaw man mosuma bokk si nguur. man député laa ma sa nekk nekk maanaam opérateur économique di jaay sama oto di bay di tukki ko ñëw. gars yi ñaan ak say sañse mais sànq nee nga pourquoi gars yi de nekk fi lu mu sañse dafa kenn dara lu mu dañoo bañ ku baax yow am nga xam nga bañ ku baax. ay so dinaa nekk leen gis nga Sénégal. Mm. ki fi gën a sonn ki lay sonn mooy say mbokk. ak say xarit. dëgg la. ñu nga jàpp say xarit la. dëgg la. élection yi passé fi moko xamé xamee man du sama jëm entre Touba taxone mais sama propre frère dañu dem wote Bassirou Diomaye fay hmm. bi ñu ñibbisee di cibler ci bir kër gi té kër gi maa yor ma joxé joxe dépense sa propre frère sama propre frère ak sama tante ak ko xamanteni ni xamul papam sama papa lañ ko jox moko yar moko takal jabar ba ni ci bir kër gi ñu dem wota Diomaye Faye ngir contre man du ci waaw waaw loolu la ñuy contre di ko naqar waaw bu naqaree sa di ma jox sama pap nga xam ne heure bu ma xëyee man bu ma demee fa dama yëkk sama addi jox sama pap bu ma xëyee rek damay dem joxe addi addi hmm. ji ko jox ñoom ñu dem di ko si ñaanaat pour ma maam def maanaam meew si biir kër gi waaw su fa demee lu ngeen bokk kii ñoo bokk bàyyi kii benn pap sama tante kee eh, jabaram sax doom man la ko tuddee pour defanteeg yow reyanteeg yow. da da mais parce que voilà. mais comme ba pare fexe yow ba nga yëg ne ñoom jomaay la ñu. waaw ñu yëg ko waaw ñëw sama papa di ko ñaan xaalis naa leen may may lañu cinq mille ñu def euh, ñu ciblé wu si kër gi te ñoom dépense ba ñuy lekkoon maa koy joxe dëkkuma si kër ga. te dëkkoo fa te xaalis moo tax sama papa ñoom moom la nga ko doon ñaan. moo lay wan ne la Sénégal kenn ko. mais moo lay wan ne Sénégal bëgguñu baax moo tax doon ne am na sama benn xarit ni dadaa jëf maanaam chaque Korité dadaa génn trente millions di ko jox fa dëkk. Mhm. mais ren Korité ji wut sax. ah waaw dafa sonn. man tabaski gu nekk daan naa génne deux millions. waaw mais ren duñ ko am. bii nga xam ne yow li nga daan joxe. tabaski bu nekk daan naa génne deux millions sama xaalis bopp. di def ay enveloppe ndax location man ah. nga weer wu nekk maanaam li may dikkal. Mm. ko man fukk bariwul de. samay location. yow mii ah, waaw ah, waaw léegi nag la kaa mooy dama daa def sama xaalisu bopp di ko joxe. Mm-hmm. mais comme léegi ñoom bëgguñu sa paa nga leen koy. mais fi ñu toll nii tabaski bi kon façon yéene sa sa sa doyo nga daan def. bàyyi bàyyi nga ko nii. waaw. Ah. télé ngay waxee de. bàyyi naa ko yow loo xam ne nga di ay at. waaw mais bàyyi ko parce que ñoo koy jox day ñu bëgg la. waaw ah, dëgg la nag. ah, ah am nga si daaw sa bopp la. waaw maa moom. yaa ko liggéey mu xajoon feneen. waaw. nga yëkkati beneen ngir yàlla te gis na ñoom sax. ñoom la yow la yow la yow a mais man tabaski bi gis naa ne ndax li nga wax nii man bëri na ay kilifa yu ma dégg ñu ni ñoom bàyyi nañ te te te est-ce ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom jomaay ñii xam nañu tabaski li li daan am ay joxe ay aide ak yooyu. ah man séntu ma ko suñu xaw ma. parce que Sénégal mais mais mais ñu mën yow li nga def ni ñu bëri ñu noonu la ñu nar a def. ah oui parce que nag nit ñi moom il faut. doo jàppale ko doo jàppale tamit nga xam ne dañ laa bañ. mais c' est grave hein. c' est grave parce que defuñu ko pour que dañuy ki mais dañu ko def pour yow quoi yow la ñuy bañ yow la ñuy. waaw bañ la bañ la gratuitement loolu teraanga bi la yàlla def si ñoom nga ko jël fekk ni man damay am teraanga xaw ma ñii man Macky Sall def na tuuba ñàkk li ma yor koo tëj kaso nangu ñetti këram tëj entreprise am ah. Mm-hmm. kooku foofu nga mën a yem ak moom. a tax sama tax doomam feebar parce que bu mu tëjoon ko sama doom du feebar pendant deux cent mi ngi hôpital. Mm-hmm. mais nit ki nag bu la defee loolu euh, yaakaar naa ne bu fekkoon ne sëñ Touba tërlu ma sama waajur liggéeyul. waaw ba ne a métti kenn àggul dañ la reetaan mais ay surtout tey laa gën sant yàlla. wallaay dëgg la man damay toog muy dox fu mu toll nii. ay ay yaa a toog muy dox. waaw damay toog muy dox waaw. mais ñii ne man du ma génn sama kër de te weer nekk ma xool message bi message rek. kon yow da nga message day daanu. banque yi kay fenn fu rek. te yow sa kër génnoo ko. fu ma jëm. ak sa oto bu yi nga xam ne clim bi da nga koy taal mi jol jol. sa kër tamit ñëw naa fa. waaw alhamdulilah. waaye sa kër tamit génn foofu rek nga ñëw ko de waaye fi ma dëkkee doo ñëw de. ah du ñëw foofu xool visité xool lu mu mel. waaw fi ñu toog muy dox bi nga wax ne nga xam ne dañ koy tere ci réew mi muy dox wala ma tëdd léeg-léeg bu ma toogee fii ba mu neex ma dem tëdd si canap bi jóge fa tëdd wala si kaw <laughs> fii waaw dem tëdd fee tëdd fi tuuti dem tëdd tëdd fee ne xam nga photo yi comme maanaam kaw suuf geeg lal beeg yow damay tëdd ba taal bi man mi sax ma ne man pauvre bi sax def ma taal bii toog daal muy def laay def fi mu toll nii. yaa tey sëñ Tuubaa ma ko defal. waaw loolu kenn mu ci dara nag fii ak may dee bu neexee yàlla incha allah. toog mi dox bi daal yow ba ñëw boo ñàkkee démb ngaa toog nag. <laughs> ba may ñàkk boobu 99. wallaahi kenn seetlu ko may fay booba. 5000 euros jamono yi lii sax may boo ko indee daanaka loolu. waaw waaw jamono la dam lon tam lon tukki. boobu franc français bu man ki di verte yoy non waaw 500 francs avant euro bi. tay yalla dogal dem ba yalla may tranga mais legui may def da nga bëgg manam di sonna legui samay dom genn na la ñi ngi jang bitim rew mhm. sama sonna kenn kangi Canada kenn kangi ngi États-Unis may happy. léeg-léeg ma dem États-Unis léeg-léeg ma jaf dem Canada jaar Paris dem dubai jeun la may jeun ñu bis tok jaf saa. Euh, sañ sey tak sey mo ah, or ak jama sey sey sey ah. ba bi 2 millions lay jar. montre bi waaw jama la. waaye jaman kay gis naa jamaa la te bi bokkul ak bi mu waroon keroog. leneen yi tamit tamit bokkul ak bi mu waroon keroog. maa ngi sant Aïssatou xam ne man Cheikh Abdou <laughs> moo tax moo tax boo nee eh, eh, deful kenn dara da ngaa a tooñ ndax yow. nee koo bëgg noonu yi yaa ngi sañ sa ba jëy def sa parfum bu ñii mu mënoon leen mun leen xeeñ ba. noonu yi noonu yi. waaw ah, noonu yaay xool lii rek xool nga def waaye suñ ku lay ñamal yii. waaw moom xam naa ne moom damay bañ di ko wax rek gars yi dafa dem dagg sama morse yi xam nga gars yi dagg morse ak dindi ay wëñ di si liggéey. dañuy def ah waaw sa yére yi. gars yi liggéey sa yére yi de. ah ah ba ah, man loolu li nga wax ne xaw ma ko ah. de. tey maa bàyyi may yére ko. waaw ko xam nga. dindi yére kii bi nga def nii. xoolal lii rek. yéegal cum yéegalam ak montre ba ndax xam nga ne ba pare bii sëriñ. ah ak sa montre ba ne ak lunette ya. sant rek sant sa maam rek. nee bëgg du ne bi. waa waa mbaa doo génn xale yi la wala koo laaj mu si risque. koo laaj mu si risque. discours bi nag du xale kenn. merci Aïssatou émission bi jeex na émission bi émission bi jeex na Mbacké baal la